mayal leen ma ay kër yu xonk cur kii dindee la ci commentaire yi ndax li nga xamante ne dal na Ouleye Anta mooy ñàkk confiance ci gorom lu mu gisoon la te lu mu yàggoon a xeex la kon am na ndam ci kaw kii di Ouleye Anta ak borom këram bii di ca Ndella tey lay xam ndax kii di Ndella mérité na rôle bi ñu ko jox commentaire yi laa bëgg ay kër yu xonq cur mbokk yi tey laa leen wax lu doy waar li nga xam ni nar naa xew ci épisode 76 bii di ñëw jëlal sa temps déglu sama kàddu yi ba mu jeex tàkk laataa loolu dama leen di benn vidéo bu am solo comme ni moo koy defee àddina bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te boo gisee lu baax danga koy partager nañu dem te ñëwaat ma àggali lan moo nar xew ci épisode 76 bi seetaanal vidéo bi ndax lu am solo la. wax la. émission bi mosuma fi wax luy dañ seet mhm. du si def du si wax luy dañ mukk dëgg la waat naa ko waatatu seet gis ma ku ma ko dàq ci Sénégal la ilaha illallah Sénégal preuve la bëgg dëgg la man lépp lu may def day am preuve mhm. barke Démoon Njaay am na waajoo xam ne mhm. bi ma ko xoolalee damaa gis moom liggéey ci yaramam allahu akbar ba ànd ak moom ba wan ko fi liggéey ba nekk ma seet seetuma damay gis la ilaha illallah ah may gis mu pour muy leer am na loo xam ni. Mhm. du ma ko wax fii waaye incha allah. Mhm. boo coupé. Mhm. dinaa la envoyé ay preuve lu leer. incha allah dinaa ko monté te noonu laa koy dugalee ci li nga xamante ne moo di internet bi ndax sëriñ bi ñu bari dañu naan da ngay magique. man seet rawaan lay seet. allahu akbar maanaam. nit ki dama koy xoolal wax ko may saraxa mu def ñaan. def naa lu mat ñaar fukki at. li may def. dama kaa man dafa wér laa ko teg. waaye nag ni ñi nañ seetlu seen i mbir. Hmm? di jéem xam seen i sarax. dëgg la. di ko def. Hmm. am na ñoo xam ne seen gàllankoor. Hmm. leen donc la. mooy duñ xool seen i mbir. amuñu seen saraxu rawaan. dëgg la. sol sax. daa war a doon bëgg-bëgg rawaanam. c'est te te xam ni. sarax boobu ma leen jox. luñ ragal la sarax bi moo leen moo leen koy dàqal hmm. man li may def hmm. ak xam li may def dëgg la moo tax ma taxaw daan ni hmm. képp koo xam ni seetal naa la te gisoo sa bopp nang jëlaatal li ma envoyé woon laa ilaha illallah képp ko xam ne nar seetal te gisuma la yàlla boo xam sama numéro te yàlla buñ jëflante allahu akbar